السلام عليكم يا فقط طالبي مانگتے دلو دلن وخنا dama bëgg ñu leer bu gàttal la ñu réer ba pare loolu loolu continuer si jàpp man du ma wax dara tellement ay ñëw yow bi nga ma laaj cant bi ma def ko ci bi question la daaw naa ko posé ne cant bi لا يركب إلا قاموا وقيا وموزوا أكبر يرمي بالحكم تقوى قولا لا تتم تستقبل جبل بدأتكم من أقوى سلاتكم بعد ما بدأتكم صوتوا حتى فلا يرجعوا دولة التريس Lọ́wọ́ náà, lọ́wọ́ fẹ́ jẹ́ ń tẹ́bí náà. Mọ́láríkà sura an gobe na dafa fasu gata, mutaraita na su gata ruba. Gidan tangon ruwan malamai can su dai ko ce dafa bëri ñu muy soxla te du tere ñu jàmbat ko te dara ku ko bugg a kondi na ku bugg a kondi ba am saa loo jël te melul lu ñu tënk te du loolu laa def waaye boo yëgee tàngoor itam ba nekk nekk ca biir tàngoor gis jara yee tax dam da muy cat fa muy jóge dafa cat a palaas ba dafa lëndam boo ko seetal la moo tax ma teg cat dundoo ji dundoo ji loolu laa tuddee sa ay rab yi li tax ma wax loolu maa ngi ko bind fële ci suuf yéen tubaab yi laa wax maa ngi ko bind ci suuf dundoo ji li muy tekki ci man mooy dundoo ba lépp lu ñuy dundee ko ji buñ ko jiyee dana tax dana meññ dana ñor nga dundee ko yow mi ko ji man a ko foo jëlee jiwu mooy sa jikko foo dem sa jikko rek yóbbu buñ lay teral sa jikko soo ñu teral foo dem jëfal sa jikko ñu ne la sa jikko nga fa ji ñu ne la dóor duñ sa lekk dala dàq duñ yërëm loolu sa jikko nga ji foofu bon moo tax ma tuddee ko lépp lu ñu tuddee dañ ko ji rek bon moo tax ma baax loolu ci dundoo bi dundoo ji maa ngi ko tuddee dundoo ji nit ña xawuñ baatam dundoo ji man maa ko jëlee ci duudi ji duudu ji duudu moomu mooy du ndoo te du du di nga du du ji ji nga mooy ay nit ko ñu somb moo tax ma ne dundoo pour nga mën a dundal li nga ji maam bi jëloon ca ci ga te duudu ji muy joon alaaji bu koy muy alxaaji mooma ci fi jaara ma sax mel ni ñor man du ma